waaw mbir mi moom ni ñu ko jàngatee ginnaaw bi ma nuyoo euh, ñëpp ñi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu mooy euh, rafetlu wuñ ko ndaxte Sénégal euh, ñëpp dañ ko jagle woon dëkku démocratie ak dëkku liberté te léegi nga xam ne nii moom lañuy gis ne régime président Macky Sall ni muy doxalee dafa faagaagal démocratie faagaagal liberté yi nga xam ne nii Sénégalais dañ ko yàgg xeex Ousmane Sonko convoqué nañ ko moom mi ngi dem wuyu ji dañ ko war a bàyyi mu wuyu ji dans des conditions yi nga xam ne nii moom moo dal xelam mais kenn amul droit ne ko fii ngay jaar wala doo jaar fii parce que loolu eh, c'est le privé de ces droits les plus fondamentaux c'est la raison pour laquelle eh, nous avons dénoncé ça dès le matin en disant que nañ ko bàyyi mu jaar yoon bu mu war a jaar dem wuyu ji juge bi répondre ko ndax ñëpp xam nañ ne mbir mi lañ ko war a wax wax nañ ko ci kenn d'accordul ak lii nga xam ne nii moom la gouvernement bi teg pour faagaagal Ousmane Sonko ak ay droits c'est la raison pour laquelle nous condamnons avec la dernière énergie lii nga xam ne moo xew ce matin dafa nekk lu nga xam ne nii vraiment day yàq daru Sénégal day tilimal démocratie du Sénégal ba pare lu wone benn image bu nga xam ne nii Sénégal kenn mosu ko foon xam ci lu mel noonu loolu moo tax ñu war a taxaw jaamaarloog li nga xam ne nii moo am day yàqal réew mi yàqal Sénégal. voilà da ngeen di condamné ba noppi it fës keenee taxaw nan ngeen fës keenee taxawee en tant que ñu fare ci opposition bi. mais de façon xam nga depuis le départ en ce qui concerne euh, l' parlementaire gis nga taxawaay bi nga xam ne nii moom la ci grand parti taxaw parce que dès suñu bureau politique wax na suñu ay député ñu wote contre la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. mais également suñu jeunes yi daje ne nii lépp loo xam ne nii ñoom ñu mën ci ànd ñoom. tey jii li nga xam ne am na rafetlu wuñ ko ñaawlu nañ ko et au niveau de l'opposition jël nañu initiative concerté wu ak suñu naataango yi bu neexee yàlla fi ak ay waxtu lépp loo xam ne nii situation moom la laaj daañu ko taxaw def ko pour défendre Ousmane Sonko mais au-delà de Ousmane Sonko défendre les libertés et la démocratie dans notre pays.